partagez leen s'il vous eh, faal salaam salaam salaam merci merci gars yi ñëw leen partagez leen waxtaan bi yaatu partagez leen vidéo bi c'est important partagez leen ah partagez sama gars yi mbir mi du yomb de du yomb nag du yomb dina jafe trop voilà doodaan yi dina bari ci tali bi mais dinañu yegg incha allah doodaan yi dina bari montagne yi dina bari mais dina ñu yegg incha allahu rabbi dinañu yegg voilà ndax suñu yonent sallallahu alayhi yeggoon na suñu yonent yusufa yeggoon na yonent yàlla ibrahim yeggoon na ñun suñu yonent yëpp yeggoon nañu donc bu ñu ñëwee ci ay réew ñu bëgg faa indi ay message te message yi di ay message yoo xam ne dafa baax pour réew yi incha allahu rabbi dinañu yegg incha allahu rabbi dinañu yegg incha allah rab bi dina ñu yegg bu soobee yàlla gën a focus on the point we're gonna focus let's focus nañu nañu concentré wu ci xeex bi parce que dafa am loo xam ne ñun ñoo ko bokk ñi ko mënta def toujours dinañ ko jéem a yàq sénégalais mooy loolu comme man bokkuma ci ceebu jën bi xaaral ma xëpp ci suuf bu yooyu bu mu leen distraire jóg leen ñu xeex jóg leen ñu dem jóg leen ñu dem kaar bi dafay dem ku bëgg a dem di nga ci dugg ku bëggut a dem yow da ngay des ginnaaw loolu rek la wan million marche woote na la vingt nee nañ la des millions de sénégalais la ñu woo ku nekk bu la neexee ñëwal sol t ak tur bu la neex bu la neexee solal yére Karim Wade départ bu la neexee solal yére Ousmane Sonko ku la neex solal ku la neex àndalal loolu sa choix la ñëw leen rek ñu jàmmaarloo ak ki fa ne maanaam soldat mi nag bari na ba bari bàyyi leen ci xel moom moo yor milliards yi fi ne ñun ay jàmbaar lañu yoo xam ne dañ fi nekk ñu nit ñuy xare ak suñuy bien wu bopp donc comprendre leen ne ñi màcc tàngalu buur bari na lool donc mbir mi dana jaxasoo dina métti de mais nañ dem rek nañu xuus nañu xuus bu leen lijjanti dara nañu xuus voilà nañu xuus ku xuus rek yegg bu soobee yàlla nañu dem rek voilà yu bare bare bare bare moo fi am bu leen wari yéen na ne vous en faites pas bu ñu distraire concentrons-nous sur le prix prix bi makki Sall la rek prix bi makki Sall la rek loolu la ñu wax de les chiens abu aboient à la loolu rek la loolu mooy dëgg bi xaj yi fële la ñuy taxaw di mbaw ñiy jëf di jëf yéen dem leen rek ñu jëf nañ leen jëf jëf rek moo ñu mën a yeggal fi ñu jëm incha allah donnons-nous rendez-vous le vingt neuf le mooy wax ji wax ji kañ la le vingt neuf c'est ku mën a daal ku mën a bëgg a bëre ku bëgg a ñëw xeex Macky Sall nga ñëw xeex Macky Sall waa ji bàyyi leen ko waa ji jiituwul senegal ba waa ji àndul ak Macky Sall xam nga li important mooy il faut que les Sénégalais sachent bu fekkee da ngaa bëgg xeexal réew réew mi ngay concentré wu man tout le monde am nañu ay jiixi jaaxa fi ñu ne. loolu taxumaa jóg fi mu toll nii garde leen loolu ba ba makki Sall jóge fi ak jàmm ak salaam du frox nee nañ la tontu du frox wolof njaayee ko wax de man saraxule laa nee nañu tontu du forox nañ leen xuus nañu dem ñi bëgg a dem nañ leen dem ñi bëgg a dem nañ leen dem yan bu leen lijjanti parce que comme niñ ko waxee ñëpp ko ko waxandoo ah. ñu ne affaire yi du ci réseaux sociaux yi affaire yi ci terrain bi la nañ dem ci terrain bi nañu dem ci terrain bi allons au terrain gars yi dañu ne woon kenn du dem ci terrain bi léegi fit yaa ngi das dëmb yaa ngi génn nooxoor yaa ngi jaxasoo la saraxole est en chemin au terrain ñun ci terrain bi lañ jëm yan ñi ne woon du ñu dem ñu ngi ci yoon bi di dem ci terrain bi ñuy woo doomu sénégalais yi gëm Sénégal ñëw leen ci terrain bi ñuy woo force de l'ordre yi tey force de l'ordre yi ñoo ma tax a jóg sama frère alkaati gendarmerie militaire seen frère sénégalais yaa ngi ñëw ànd ak yéen xeex li nga xam ne dañ leen ko def mu metti leen parce que yéen a fi ne di sàmm Sénégal kenn warul séddoo Sénégal te yéen doo leen ci am loolu mooy réalité bi réalité bi mooy vraiment nañu génn ci terrain bi loolu mooy wax ji wax ji wax ji wax ji yépp nañu génn ci terrain bi rek coow li neex na ku ne man ngaa toog sa kër ku ne man ngaa ŋàññi leneen ku ne profité leen xam nga man moom comme niñ koy waxee rek macha allah dama am bayre ku utiliser sama tur rek yàlla dina la yóbbu jël leen yóbbu may naa leen mais nañ dem ci terrain bi allons dans le terrain loolu mooy wax ji le combat c'est dans le terrain loolu mooy wax ji li ñuy ñaan doomu sénégalais yi yéen ñi bëgg Sénégal les patriotes waxuma woote yi ci suuf waaw diw defal lii waaw diw ñaanal ma ci sëriñ bi déedéet yooyu yëpp waxuñ ko fi mu toll nii li ñuy wax nañu dem ci terrain bi nañu dem ci terrain bi sortons allons sur le terrain nañu dem ci terrain bi loolu mooy wax ji wax ji wax ji yëpp comme ni ma leen ko waxee nee nañ fii du dem nee nañ fii du ñëw nee nañu du wax dara nee nañu ils vont wax rek nee nañu mais ma nañu dem ci terrain bi allons sur le terrain wax ji kan la Macky Sall la kan moo jiite réewu senegal makki Sall la kan moo yor alalu senegal Macky Sall la lan la ñuy def nañu génn dem ci terrain bi jàmmarloo ak Macky Sall ne ko liñ la dénkoon nii ak nii ak nii la waroon demee nii ak nii nga ko doxalee Macky sàll bu defee li ko war doomu sénégalais yi ànd ci bu deful li ko war doomu sénégalais yi jëlee ko fa c'est ça la vérité il faut ngeen xam ne. l'heure est grave xam nga ndeysaan defe naa toujours doomu aadama comme li ma leen di wax doomu aadama ñemewul changement nit ñemewul changement te ñun par contre Sénégal gën ci grave Sénégal gën a grave ci lépp Sénégal moo gën a grave lu yàlla sàkk ci suuf yëpp suñu njiiti jubuñu suñu doomu aadama yi bëgguñu changement lépp lépp lépp lépp lépp pour lan lépp pour lan lépp pour lan pour bëgg a jàmm ay fonto ma ne nañu génn dem ci terrain bi loolu mooy wax ji loolu rek moo ñu intéressé li ñu intéressé rek mooy doomu sénégalais yi génn dem ci terrain bi c'est ça la loolu rek moo ñu intéressé yeneen détails yi yëpp amul solo comme ni ma leen ko waxee nee naa leen moi je ne permets personne sur mon ngay saaga kenn wala nga koy wax lu bon wala nga koy def lu bon déedéet pas ci sama tur jéggal leen ñëpp ñu dem jàmmaarloo rek ak Macky Sall li ñuy def nii yëpp li ngeen di gis nii ci réseaux sociaux yëpp maa leen gën a capable téeméeri junni yoon mais c'est pas ce qui m'intéresse c'est l'union qui fait la force l'union fait la force li may woote moom laay continuer woote nañ leen dem jàmmaarloo ak Macky Sall c'est ça la kuy sakku Macky Sall xam nga ne mbott jaaxalu la xam nga ne pitax jaaxalu la xam nga ne ay weñ yi wee jaaxaluñu la loolu taxuñoo jóg li ñu intéressé nañu dem chez Macky Sall loolu mooy loolu mooy dëgg bi loolu mooy dëgg lii dëgg nañu dem jàmmarloo ak Macky Sall nañu dem fële ci terrain ba ñu jàmmarloo ak Macky Sall loolu rek mooy suñu réalité réalité bi yëpp ay caaxaan la ñi bëggut a dem dinañ leen ne boo demee sa tànki dina lakk dinañ leen boo demee da ngay dee dinañ la ne boo demee dangay feebar dara du la jot ñun demuñu fa pour rey nit yóbbuwuñu fetal yóbbuwuñu paaka yóbbuwuñu jaas yóbbuwuñu sax yóbbaalewuñu lamset lamset sax duñu ko yóbbaale li ñu yóbbu tout simplement mooy li ñu suñu droit may droit bi lim ñu may moo ñu yóbbu droit bi lim ñu may rek moo ñu fa yóbbu li ñu suñu loi permettre rek moo ñu yóbbu senegal demuñu fa pour sàcc kenn demuñu fa pour rey kenn demuñu fa pour gaañ kenn li ñu yóbbu mooy ay doomu sénégalais yoo xam ne dañuy naqarlu ay doomu sénégalais yoo xam ne dañu am lu leen naqari ci seen réew ñu bëgg a génn xeex ko ngeen jéggal ma parce que waxtaan ji xaw naa gudd tuuti dama bëgg a dugal suñu benn xarit bu baax vraiment muy euh, suñu xarit boo xam ne dafa gëm démocratie muy euh, caporal Ousseynou xaaral ma dugal ko. suñu euh, xarit caporal Ousseynou fal dafa bëgg a participer ci waxtaan bi jéggal ma tuuti rek ma dugal ko baal leen ma ak baal waa caporal may ma waa caporal jéggal ma ma taal euh, kii bi waa aleykum salaam jéggal ma ma taal bluetooth bi pour gars yi dégg la ah. jéggal ma voilà léegi ñu lay dégg ñu ngi lay dégg en haute voix vas-y vas-y caporal vas asalaamaaleykum caporal. asalaamaaleykum. maaleykum salaam ñu ngi lay dégg tey moom force de l'ordre la ñuy woo waaw. Ah, ah, ah. ñu ngi lay dégg vas-y. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi maa ngi nuyu internautes yëpp. Mhm. di nuyu diaspora bi di nuyu sénégalais yëpp. Mhm. à travers nuyoo bi may nuyoo sénégalais yi maa ngi teg ci loxo one million de mars. Mhm. parce que ku wax one million de marches wax le peuple sénégalais. Mhm. parce que one million de marches dan na ñun benn leader lañu am muy le peuple sénégalais. Mhm. te benn candidat lañu am muy le peuple sénégalais kon one million de marches muy peuple sénégalais. Mhm. te ñun dañoo gis ni réew mi la ñu bokk te am nañu yaakaar sunu réew ba léegi. am na lu fi xew bari na li fi xew. ci loo xamante ne ni du étigu sénégalais. du moralu sénégalais du déontologie sénégalais. Mhm. léegi ci la woon ñoom de mars ñëw for Sénégal. Mhm. initié. Mhm. par le diaspora. ñu ñëw. daan vraiment li nga xamante ne nii gis nañ ko ci suñu réew. il faut que ñu xeex ko. ndax corruption lañ fi gis. injustice lañ fi gis. perte de valeur lañ fi gis. parce que ñun tey waruñu am perte de valeur ndax ñun maam jaar nañ fii. dëgg la. depuis quatorze dix huit trente neuf quarante cinq. suñu hmm. maam yi ñoo dem libéré la France. dëgg la. kon tey France waruñu ñëw jël nit warul jël encore dañuy joxaat France. loolu mooy dëgg. tey nit warul jël encore dañuy jox Maroc. dëgg la loolu mooy dëgg. ñun ba liggéey ba ñu liggéey ak benn ak beneen dëkk. dëgg la. mais ñu liggéey ko ci nawle ak ci nawle. dëgg la. ku nekk xam ne da am drapeau da nga am hymne national da am république da am patrie da am nation te da am peuple. dëgg la. kon suñu njiit yi nga xamante ni ñoo yore Sénégal. Mhm. war nañ xam ne ñun sénégalais ñoo leen fal. dëgg la. beneen pays falu leen budul Sénégal. Mhm. moo tax man mii da mars bi mu ñëwee vraiment dafa ñëw ci heure bi ñu ko soxlaa. Mhm. l'heure est grave. dëgg la dëgg la. moo tax il faut que sénégalais defal sa xel ni ci bokk. dëgg la. pour sauver ce peuple qui détresse. dëgg la. pour sauver ce peuple oublié. dëgg la. pour sauver ce peuple qui loolu mooy dëgg. et enfin malheureux. dëgg la. ñu ne ñun dañuy ñëw jëmmal sunu bopp nag. te xam ni bu dee budget Sénégal tey diaspora bi ñoom dugal nañ ci mille milliards. dëgg la loolu mooy dëgg. kon ñoom seen mille milliards. Hmm. Tunkara war ngeen a xool fu ñu koy def. loolu mooy dëgg. mais ci kaw xool fu ñu koy def boobu nag yéen moo tax ngeen initié. Hmm. one million de mars mooy blocus c'est-à-dire dama wax blocus sax cest à one million de mars mooy garde fou. dëgg la. te du yam ci Macky Sall dong. Hmm, président bu fa mën a toog waa miam da marche des conditions loolu mooy dëgg de. parce que Tunkara comme ni nga xamee ñun kenn financé wu ñu de. déedéet déedéet. téléthon la ñuy def. loolu mooy téléthon la ñuy def. dëgg la de jëluñu xaalis. téléthon ku ko xamul mooy. Mhm. maire bi jaay gerte caaf. Mhm. cent franc mu ngi ci. waaw. ci moniteur bi mu ngi ci mu ngi ci one mhm. kon c'est pour pour le peuple sénégalais dëgg la ñun nag dañoo woote manifestation mhm. pacifique woote wuñu xeex woote wuñu xuloo woote wuñu déstabilisation woote wuñu révolte woote wuñu guerre woote wuñu dara lu ñu woote mooy jàmm loolu rek mooy dëgg parce que suñu démocratie moo ñu may dëgg la suñu liberté moo ñu loolu mooy dëgg. suñu loolu rek mooy dëgg. et pourtant nañ mars. mooy dëgg. ah en tout cas. moo tax man may jaaree hmm? ne en loolu ñëpp xam nañ ko Macky Sall mars moo ko teg ci nguur gi. bu doon mars du fi. mooy yoroon na mer ah en tout cas. yoroon na mer gàddu. en tout na mer gàddu place Lubirix. en tout cas. Moustapha Niass yor nga ndaw xeer di dagg saagay ndey. dëgg la loolu mooy dëgg. yor nga ndaw xeer sànni ko assemblée nationale ba pare di dagg saagay ndey maître Abdoulaye Wade. dëgg la dëgg la loolu mooy dëgg. tey moom moo nekk président assemblée nationale. loolu mooy dëgg. loolu du lu ñuy inventé loolu dëgg la. loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg. loolu démb la woon ñun ñëpp fekkee nañ ko. te muy dëgg gu wér. moo tax ma fi may gën a waxee man. Mhm. na ma Sénégal yëpp déglu ak xel te buñ ma déglu ak xol. dëgg la. man j'ai fui militaire j'ai fait onze d'armée injustice moo ma génn ci l'armée. Mhm. depuis ma génn ci l'armée wàccewu ma samay loxo. Mhm. maa ngi xeex ngir armée bi am seen ak ak seen yelleef. Mhm. man loolu mooy sama mission. moo tax may lancer un appel.

ak yéen étranger li ñu la dugal fii. loolu lañ leen di fayee muy salaire yi. Macky Sall fayu leen. Aly Ngouille Ndiaye fayu leen. les préfets yu joxe ay ordre ñuy réprimer les les populations leen. kon ñoom nañu ressaisir te xam li ñuy xeex. du pour li ñuy xeex ñun. pour peuple sénégalais la. sol tenue ak ki solul tenue mm-hmm. xeex bu nu xeexee ba tey ñu ne dañu war a yokk salaire militaire yi war a yokk salaire policier yi loolu xeexu noble la. dëgg la loolu mooy dëgg. ñoom bu leen ordre pour ñu war a mën a réprimer. dañu mm-hmm. xam ne seen i frère la ñu sànni lacrymogène. loolu mooy dëgg. dañu xam ne seen i doom la ñu sànni lacrymogène. loolu mooy dëgg. xam ne seen jabar ak seeni i sët la ñuy sànni lacrymogène. loolu mooy dëgg. ci démb ba ñuy reyee Bassirou Faye dañu xam ni seen doom la ñu rey. mooy dëgg loolu mooy dëgg. xam ne seen doom lañu ñu rey. dëgg la loolu mooy dëgg. teewul ci lambi di nga dellu ci sidil dëgg la. damay lancer un appel à tous les policiers à tous les hommes de tenue. dëgg la. y a des ordres légaux la. am na ordre yoo xam ne chef bu la ko mën a jox. dëgg la. tu vas fuir ses après. dëgg la. le cas de mu leer le cas de Sidi Mohamed Bougale Fall c'est ma classe. Mhm, mhm. ñu ngi ko combien d'années de travaux forcés. dëgg la. am na chef bi nekkoo ak moom joxoon leen ordre yi pour ñu mën a réprimer. dëgg la. il n'est pas en prison. dëgg la. mu nga këram tëdd di fo di caaxaan di lekk alalam. dëgg la. et pourtant ñoom tey ku fi rey nit tamit danaan da nga du kaso. Mhm. loolu mooy dëgg. malgré seen liggéey lañ nekk di def mais seen liggéey dañ koy ak xel ak xol. loolu mooy dëgg. lu tax ma ne lu tax ma ne xel. Mhm. parce que ku ne xam na ni. ruu mooy jëmal nit. loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg. yàlla defarul lu bon. loolu mooy dëgg. ruu lu muy indi ci xel rek lu baax la. rek. mais selon xel mi ak xool bi ñoom ñoo xool parce ku ci nekk yaay sa seytaane bopp. dëgg la loolu mooy dëgg. parce yow tey boo nee militaire bi ma ne man tey la laa ma ne civil bi dafa maa yem ma jël la kër ma gën sànni ko ko. dëgg la. sànni naa ko ki may fay salaire. dëgg la. seen sotti ndox yu tàng. sotti naa ndox yu tàng ku may ci may fay salaire. dëgg la loolu mooy dëgg. sotti naa ko sama yaay. sotti naa ko sama papa sotti naa ko sama rakk. dëgg la. mais Macky Sall mais defalul dara armée sénégalaise. defalul dara Sénégal. defalul dara Sénégal. defalul dara ñi nga xam ne dañ la ñu ordre ñu war ñoo réprimer le dëgg la. chef bi mag yi la corrompre. Uh-huh. yokkal leen ay millions et des uh-huh. mais yow tey ki la war a sànni la climatisé ko ko kenn yokkul ko un franc au contraire dañoo dagg seen salaire ñaari ñaari fan mois yi passé. Uh-huh. kon ñun li ñuy xeex ñu mooy même de mars pour ñoom la. dëgg la loolu mooy dëgg. kon ñoom nañu am ne xelu ni. tey comme li xew à l' étranger Sénégal war nañu toll foofu. lacrymogène yi Mm-hmm. ñaata lay jar ñaata lay jar. <laughs> xaalis bu bari mënoon na koo jox militaire yeeg. Eh. oto yi mais oto oto yu bees yi ñu nii ñaata jar. dëgg la dëgg la. mais nga yokkoon ko seen salaire ñu am motivation moo gën. loolu mooy dëgg. c'est ça la vérité. c'est-à-dire Macky Sall veut nous mettre en mal. Mm-hmm. Macky Sall il sème la zizanie. Mm-hmm. parce que dafa bëgg a jaxase askan bi ak ak ak ak armée bi. et pourtant armée bi ñu ngi ci biir askan bi. loolu mooy dëgg. et pourtant armée bi. Mhm. suñu wàccee liggéey dañoo am ay jàpp ami doom seeni kër lañuy dem fanaan ci les civils. dëgg la dëgg la. kon ñoom lañuy ñuy yeew te xam ne ñun. Mhm. Mhm. li ñuy xeex. pour ñoom la. c'est loolu mooy dëgg. li li ñuy pour ñoom la kon ñoom buñ ordre buñ mën a jox buy réprimer nañ ko bañ. dëgg la. nan ko bañ bu la waxee tiré leen fetal seen doom seen i lañ ko bañ. loolu mooy dëgg c'est ça la vérité. parce que nag lépp loo mën a wax. Hmm. lépp loo mën a wax. Hmm. le las de Aly Ngouille Ndiaye. Hmm. doomam mu ngi États-Unis xaw Angleterre di baata ay millions ci Facebook bi. loolu mooy dëgg. doomam kenn ko sànni la kii ma benn. dëgg la. doomam kenn ko dóor ba la fetal. mënul nekk. Sidiki Kaba. Mm-hmm. Kaba nekk na ministre de la justice. dëgg la. commissariat central de Dakar doxaloon saaga na policier yëpp foofu ay hmm. te yow sañ ko yow. ah xalaatu ma ko est-ce que man ko. xalaatuñu ko ñun. pourtant boo ko defee suma ñu jàpp pour et moom doom def na ko. dëgg la loolu mooy dëgg. lu ci lu ci dikk. dara dikku ci. kon na militaire yi no no homme yi yeewu. Hmm. te xam ni tey kuñ fi rey. dëgg la. nous ne sommes pas en temps de guerre. dëgg la dëgg la. nous sommes en temps de paix Macky Sall jox na leen yoon Sidi Mohamed Bougaleb Fall sama classe mu ngi ci prison bi trente ans cinquante ans de travaux forcés. loolu mooy dëgg. ñoom tamit ëllëg ku ci def di Sidi Sidi Mohamed Bougaleb Fall sama classe def da ngay dem cinquante ans de travaux forcés. loolu mooy dëgg. loolu du défendre c'est-à-dire ñoom dañuy wax dañuy défendre militaire yi dañuy défendre militaire yi c'est-à-dire yow am benn idéologie boo xamante ne nii militaire yi ak ak ak la population dina nekk en parfaite harmonie. loolu mooy dëgg. loolu mooy dëgg mais bëgguñu loolu. tey parce que njiit bu jubadi. noo bëgguñu ko bëggul loolu déedéet. parce que militaire bi ak population voilà. dictature la bëgg a samp. loolu mooy dëgg il faut diviser pour mieux régner. moo tax mu mhm. loolu la. moo tax mu gërëm suñu chef militaire yëpp. dëgg la loolu mooy dëgg. yokk leen des millions et des millions seen salaire. Mhm, loolu mooy dëgg. mais nag il faut que nag mu xam ni l' de deux mille dix neuf deux mille dix huit nekkul l' armée mille neuf cent du benn. l' bi ci boppam ànduñu ak président Macky sal xam na ko il parce que Macky Sall defalu leen tous. dëgg la. tey armée bu tollee mu toll ngeen baax na ci kàddu gi mais maître Ablaye Wade moo ko indi tey. loolu mooy dëgg. suñu demee mission moom la même sax defu leen dara au contraire dagg seen salaire dëgg la. kon l'armée elle républicaine et cette armée devrait être du côté du peuple. dëgg. si notre armée elle ndax peuple bi moo leen moo loolu mooy dëgg. te ñoom ci peuple bi lañ bokk. Mhm. bu loolu weesoo. Mhm, dëgg la. mooy mooy waa minimum de marche. waaw. Euh, euh, euh, benn benn projet la boo xamante ne nii. Mhm. incha allah tant que sénégalais gi am woon million de marche day am. dëgg la. kenn kuy noyyi mënul yàq woon million de marche. déedéet c'est pas possible. parce que woon million de marche. union de marche c'est le peuple sénégalais. loolu mooy dëgg. benn candidat lañu am benn leader lañu am. loolu mooy dëgg c'est ça la vérité. mooy le peuple sénégalais. rek rek. ñun kenn financé wuñu de. loolu mooy dëgg ñun bokkuñ ñun duñu organisation. loolu mooy dëgg. ñun ci benn projet la nekk ah, à boo xam à la day dem tant que sénégalais ñu dund wan ñoom de marche day dund même ñun bu ñu deewee jóge fii suñu doom bu ñu ñëwee dañuy topp ci tànk wan ñoom de marche parce que wan ñoom de marche. moo war a sauver Sénégal nag. loolu rek mooy dëgg. moo tax ñu ngi woo gaa yëpp nag. Mhm. mais Macky mhm. ngi koy woo mu loolu mooy dëgg. il invité. parce que mooy arrangement. loolu mooy démocratie. il invité. loolu mooy loolu mooy dëgg. il est invité. dëgg la il invité. dëgg la njabootam nañ ñëw ci marché bi. dëgg la dëgg la. ñu jox ko suñu mémorandum. wax ko les onze points yi ci nekk. dëgg la. mais tey bu ñu waxee ñu ne politique politique dëgg la mais tey les ressources naturelles. Mhm. est-ce que affaire lu affaire politique am dafa doy waar. suñu pétrole bi bi ñuy caxat caxatee. suñu mhm. zircon bi ñuy caxat caxatee. suñu économie bi ñuy caxat suuf ñuy caxat caxatee. est-ce mhm. loolu pour la. déedéet. mais loolu pour Sénégal la. exactement. ñun waruñoo namm waruñoo loolu mooy réalité. xam nga kan mooy leader. Mhm. ki wax annonce bi. loolu mooy dëgg. ñëw leen ñu dem. Mhm. ñu defar Sénégal. dëgg la. ñëw leen ñu dem ñu takk suñuy ndigg feddali wax suñuy laxasaay defar Sénégal. dëgg la. te bàyyi politique politicienne bi. en tout cas bàyyil politique ak politicien bi. nañ bàyyi politique. dëgg la. politique yóbbul réew fenn. déedéet jamais. politique yóbbul réew fenn bokk na ci nag li réew mais liggéey moo yóbbu réew mais nag Sénégal politique jël moom lañ bëgg def métier. ñëpp dañu defe ne il faut ñu nekk ay politiciens pour dund kenn mënul créer emploi boppam kenn mënul demal boppam ku bokkul daal. Hmm. boo leen koy déglu booy déglu sénégalais boo gis. ku nekk ñu ngi wax ay affaire de partage de gâteau ay rang ay jubadi ay jaar gauche jaar droite loo jël ñu wëlbati loo wax ñu wëlbati sénégalais daal man man grand Ousseynou man dem naa ba à un dem naa ba à un nee naa du sénégalais yi laay xeexal mais Sénégal laay xeexal parce que xam nga xeex nga xeex dafa metti xeex dafa metti dëgg xeex di xuus di xeex di xuus ñi nga daan àndal ñi nga daan defal lu baax ñi nga daan nekkal ci jàmm mais da ngay defe ne dangay ngay defe ne c'est la fin du monde mais c'est pas comme ça la àdduna bi mooy lan nañu xeex li nga xam ne moom la Sénégal bañ Sénégal yëpp na problème la ñu am c'est sal Sall suñu problème du ñun xam nga nit tey wax dëgg yàlla soo amee problème personnel ak moom man nga ko sax maanaam woo xas lu la neex man nga ko def mais dafa am loo xam ne heure bi bu jotee heure julli bu jotee ñëpp ci jàkka ja heure église dem église bu jotee bu sonné chrétien yëpp ci église ba donc loolu doomu aadama il faut ñu mën koo différencier est-ce que yow tey di nga bàyyi dem jàkk parce que da ngaa xeex ak njaga te njaga day dem jàkk non mais c'est pas la réalité ça c'est personnel loolu personnel la senegal yi jël leen seen affaire personnelle yi dama xuloog Aïda parce que Aïda dafa ñaaw wala non Aïda ñoo bokk jëkkër loolu lu tere nga bañ a julli donc Macky Sall dem dajeeg moom dafa mel ni ba léegi ci jaamu yàlla la doomu aadama yi xamuñu ko mais wax ak Macky Sall ci njaamu yàlla la il faut que les sénégalais savent ça lii c'est pas un cas de soo bëggee wax ak man xam nga nooy def ba yax wax ak man c'est ça la voilà merci vas-y vas-y continuel grand. voilà comme ni ko waxee tey c'est très important li nga wax nii Tounkara. Mhm. les divergences personnelles là. waaw ay dof lañu rek. nañ ko teg fële. parce que aussi ñun Macky Sall tey bu nekkoon ministre la. waaw ñun ñu teeluñu. bu doon si ñun tey amuñu problème ak ay ministres. déedéet. ñun kenn lañu amal problème. mooy le la république. rek le nom le nom de Macky Sall. na ça nous importe ça nous importe peu. c' est ça la vérité c' est ça la vérité. son personnage am personnage am. Hmm. amaluñu njëriñ. titre bi moo ñu amal njariñ xam nga ñoom ñu amal njëriñ. waaw li muy incarné. loolu mooy dëgg. te li muy incarné ñun ñoo ko fal. Hmm. mais sénégalais aussi war nañu yow dañoo yaakaar ne Macky Sall mooy seen buur Macky Sall mooy seen mindaan. loolu mooy dëgg li ngay wax mooy dëgg. mooy réalité. Macky Sall yéen a ko fal. dëgg la di ko fay bu feebaree ngeen faj ko. bu doom feebaree ngeen faj ko. dëgg la doom doom bi nekk États-Unis ay gendarme sénégalais ñoo koy gardé. loolu mooy réalité bi c' est ça la vérité. gendarme yooyu ga gendarme yooyu impôt sénégalais lan leen di fayee. loolu rek mooy dëgg c' est ça la vérité. kon turu kon jëmmu Macky Sall amul ñu njariñ mais li muy incarné mooy. la présidence de la loolu la loolu mooy dëgg. parce que président boobu mu nekk moo ko permettre mu jël suñu alal di mhm. mooy dëgg. mais gars yi wax dañuy wax saaga mais ñun saaga wuñu la loolu mooy dëgg c'est ça la vérité. mais mais mais mais mais mais grand mhm. ku fen loo koy wax. ah dëgg <laughs> waaye mais ku fen xanaa da koy li nga li nga wax dafa neex c'est pas c'est mais sa waay. mais Sénégal. xam du ñu déglu ku fenn xam nga sénégalais li grave sénégalais. du déglu kii wax fen de. mais mais di déglu kii wax fen mais ki ko da ngay fen kooku mooy problème bi mais kii fen. kooku mën naa fen à tout moment mais ki da ngay fen ça c'est problème. du ñu déglu problème. sénégalais du déglu solution problème la bëgg a gis. problème la ñu bëgg a gis mais dafa mel ni ñun dañ leen ne dafa mel ni ñun dañu ne nit ñi ñëw leen ngeen génn ngeen dem dajale xaalisu Sénégal jox ñu ko déedéet ñun dañ leen ne ngeen génn ñu dem xeexi li injuste biñ ko fii wootee caporal Ousseynou wallaay chaque jour gars yi xas ma nee nañu doo leen génn fa ngeen di toog ci diaspora bi di woo doomu jàmbur yi nee naa leen léegi maa ciy jiitu ñu ne non non doo ci jiitu vidéo li nga wax ak li nga def ak waaw yaare rey nit waaye bu leen sonal nit ñi fii ñaari affaire moo fi mën a am ngeen génn ñu dem xeex ak Macky Sall wala ngeen tëdd seen kër yi nelaw Macky Sall di leen noot ba kañ. ba kañ. dëgg la la mais c'est ça voilà c'est ça la vérité li nga wax nii. vous avez parfaitement raison. c'est ça la vérité. Mouhamad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ba léegi ñu ngi koy dëgg la c'est ça la vérité. ŋàññi bi ŋàññi bi Macky Sall en 2015 dama ne ca ŋàññi ba ñu ŋàññi en 2014 15 dama ne ca ŋàññi ba Charlie Hebdo. dëgg la loolu mooy dëgg. Insa ibnu Mariam ba léegi ñu ngi koy mais kon gannaaw yéen bu leen ku leen ŋaññi. Charlie Hebdo barki Dembo moo fa jiitu. Macky Sall. luñ fa wax. loolu ñeme woo ko wax sax yow man ñeme wu ma ko wax. dëgg la Charlie li fa xew. adduna bi yëpp gis nañ ko. bien vrai que ñun duñu condoonuñu violence violence maanaam wootewuñu fenn violence ndax ci diineel islam sax yàlla bëggul violence. même ci diine même islam yàlla bëggul violence. mais masiba naaru lay yu mel noonu bu amee au moins newuñu Macky Sall mu récompenser leen waaye di dem di jàppante ay loxo ak ay président France yow bis bu ne français rey sénégalais bis bu ne ñu rey suñu ay doom kañ la Macky Sall ñëw taxaw amul waaw c'est ça le problème kon problème boobu grand ñun ñoo koy réglé loolu mooy dëgg c'est ça la vérité parce que doo ko compris bii nag Sénégal ñoo ko bokk dëgg la yow tey diaspora bi yéen am ngeen li ngeen am ba pare. dëgg la dëgg la. mais mais c'est une triste vérité am ngeen li ngeen am ba pare yéen teg tedd ngeen ba pare. loolu mooy dëgg. kon yéen bu ngeen nangoo encore jëlaat seen alal encore di ko def pour Sénégal mën a dem. c'est pitoyable waaye ñun da boroom da koy continuer. war nañu bàyyi xel war bàyyi xel ci yéen. loolu mooy dëgg ñun ñu ngi bàyyi xel ci yéen grand. parce que ñun ñu nekk fii nous sommes tristes. dëgg la loolu mooy dëgg. ñun ñu nekk fii nous sommes en détresse. loolu mooy dëgg. c'est ça la vérité. tey amatoo benn yow tey sa privé yëpp dee na. loolu mooy dëgg. c'est ça la vérité. lu amatoo suuf amatoo géej amatoo dara. loolu mooy dëgg. léegi dañ koy bàyyi nii ba kañ. kenn xamul nobody knows. mais non mais loolu faaw mu dakk nag. loolu mooy dëgg. incha allahu rabbi ñu ngi woo Sénégal yëpp le vingt neuf xeexuñu xulóowuñu saagawuñu. déedéet. ay ñëpp ñëw sol ay tiset yu weex yor ay ay ay drapeau. force de l'ordre force de l'ordre yi force de l'ordre bu leen fàtte. waaw parce que ñoom tamit suñuy frère lañ. dëgg la. ñoom tey bu ñu xeexee ba Sénégal nekk un pays un un un pays développé. Mm-hmm. ñoo koy njëkk a loolu mooy dëgg. man dama wax ni ñuy jox salaire yi mérito wuñu salaire yi. dama mhm. wax mooy takk der yi. Mhm. ñoom tey fii tey ñooma. Mhm. toogee fii nekk suñu kër. di añ ba suuf di naan ba man ñoom añuñu lekkuñu naanuñu sur le terrain. muy naaj muy tàng on ne tue on ne dévore pas. réew. dëgg ci défendre Sénégal ci biir réew ak ci bitim réew. loolu mooy dëgg. boo demee Casamance gis seen situation da jooy. gis nga doguma la sax caporal. caporal ah. doguma ah. la doguma la tey je parlais avec un jeune. Euh, mm. coïncide coïn jeune bi aussi Ousmane Sonko la tudd. mais il est de la Casamance il est de Bignona. Mm. wallahi azim damay waxtaan ak jeune bi ci suba tey may ndekki de damay waxtaan ak moom lu yàgg après affaire bi commencé maa def ay ay problème ma ne la ba sama ay rongoñ di tuuru mu may mu may expliquer ay cas yoo xam ne c'est extraordinaire c'est pas c'est pas insupportable dafa am loo xam ne Sénégal Sénégal dañu toll foo xam ne xam nga nit ku ne ak sa xam-xam man man par exemple mm. defuma defuma finance ni économie donc am na yu bari yoo xam ne mënuma cee wax mais j'en suis sûr et certain que ñi xam finance xam économie ñu ngi may yónnee ay documents di may yónnee ay affaires yoo xam ne yéen tey man su ma ko liiree je me demande ci ban Sénégal la nit ñi dëkk ci ban Sénégal la doomu aadama yi dëkk ban Sénégal la nit ñi toog nii di gis seen bopp Sénégal kenn dafa warul xeex ak ku la mbej sax ku la mbéj sax Macky Sall nga war a dem attaqué yow buñ la mbéjee ci mbedd gis nga yow ci mbedd bu leen nit mbéjee sax c'est parce que la personne est mécontente yow lan nga war a def demal digaale ko ak patron xam nga Ablaye Wade dafa am wax ju mu mas wax xam nga Ablaye Wade dafa am wax ju mu mas a wax mais ay gone ndeysaan nee nañu mag su waxee du ñu dégg li mu wax du ñu dégg li mu wax mais ab Ablaye Wade dafa ne mu ne xale bu la saaga da ngay dem defi nii baayam bu boobaa nga soog a jàkkaarloo xale bi c'est parce que bul fàtte ne baay bi moo yar xale bi c'est ça la vérité. xam nga Sénégal ñii naqar lu yëpp Macky Sall moo tax ñu am naqar ñun c'est pas les sénégalais de lambda ñii yëpp la fan lañu leen xamee ci xeex bi lañ leen xamee ñii ci combat bi la ñu dajee ñii fii la ñu xamante man ñi ma xam ni yëpp la plupart la majorité de ces personnes ñi ma xam fii yëpp ci combat bi laa leen xamee mes mes autres amis ñooñu mes amis privés ñoom nekkuñu ci lii doxuñu ci lii vraiment man damaa may xarit yoo xam ne suñ ma gisee tey billaay wallahi tallaay grand dañuy yëngal seen bopp ñu ne ma Ousmane naka nga mën a jëlee sa vie nga koy sacrifier pour ay nit yoo xam ne ils ne sont pas reconnaissants mu ne sénégalais amul reconnaissance sénégalais boo sacrifier sa vie bu ñu demee ba saaf la ñoom ñoo lay daggate di la añee bàyyil sénégalais ma ne leen mënuma def loolu man Sénégal laa gëm je suis un fils digne du Sénégal du ma dellu ginnaaw dara du ma delloo ginnaaw pexe bu ma mën a def ba Sénégal amaat souveraineté am dinaa ko def bu ma naree sacrifier sama vie pour Sénégal am jàmm dinaa ko def au nom du créateur merci grand waaw vas nga yeggali sa waxtaan maa ngi lay déglu waaw comme très bien comme li nga wax nii mhm. te yow suñuy référence nga bokk dëgg la man say live yàgg naa ko seetaan ay live Mouhamed Mouhamed Fadel yàgg naa ko seetaan. dëgg la Baba Aydara. dëgg la yàgg naa leen a seetaan. la ay Omar Faye leeral askan wi. mais yéen il faut que ngeen def li ngeen di def nii. dëgg la parce que sénégalais ngeen te vous êtes digne d'être fils d'un sénégalais. dëgg la yéen vous êtes des sénégalais malgré génn ngeen à l'étranger mais grand yéen génn bi ngeen génn nii neexu leen. dëgg la. yéen te li bëgg bu ngeen ko amoon fi ngeen di toog di dóor waar wàcc di gis seen njaboot chaque jour. la. mais mënul nekk parce que fii amoo amul lu fi sénégalais mën liggéey. dëgg la loolu mooy dëgg. fii ñi fii liggéey mooy ñiy politique ñi ne ñiy liggéey mooy ñi xam ñu ngi sàcc ci parti politique yi. dëgg la sàcc ñu sàcc sunu kaaj leen ko doon ñu koy dëgg la. mais loolu nag la gars ay sénégalais yi war a dakkal. force de l'ordre yi aussi ñu xam ne ñu duñ seeni ennemi. dëgg la. mais grand encadrer une a noble encadrer une marche. dara gënu koo noble. dara gënu koo noble. mais dañ ko def. dara gënu ko gerte boo ko sànnee lacrymogène war nga ñëw bi ñuy tere mbedd bi ñuy tere. ñun ñoo ko moom de. déedéet mbedd mi du neexee. dëgg la c'est la vérité. man tax la mais lan moo tax waruma doxantu bu du pale. ah en tout cas. plan palais moo mën ko. en tout cas de. waaw bu fekkee bu fekkee bu fekkee nag bu fekkee nag bu fekkee nag sunu gars yi dañuy fay luyaas ba léegi ñu wax nu ko kon. a en tout cas en tout bu fekkee dañuy fay luyaas ba léegi. parce que tey mënu maa gëm man ci Sénégal total di yóbbu carburant palais. amul benn sens. te EDK nekk fi. a ah, en tout cas. Touba Oil nekk fi. en tout cas. mais lan moo tax Macky Sall gëmul suñu secteur privé ñun. gamul Sénégal Macky Sall gamul Sénégal. la moo tax Macky Sall ñun gëmul la moo tax Macky Sall ñun gëmul gëmul ñun gëmuñu. dëgg la ñun ñu ko koo gëm topp ci ginnaawam di daw. c'est ça la vérité. ñëpp ñu ànd ak Macky Sall ba dama ne gëmuñu Macky Sall bu Macky Sall follee ko ñu dem ci keneen kii faluwaat parce que ñu ànd ak Macky Sall tey ñëpp ci Abdoulaye Wade la nekkoon. dëgg la. quand il parle de réalisation je dis président tu parles de réalisation yow yow. c'est ça la vérité. mais c'est Abdoulaye moo ko réalisé bi mu koy xam il n'était rien du tout. loolu mooy dëgg. moo ko def lépp lu mu doon Sénégalais man koo xam tey ko Abdoulaye moo ko réalisé. dëgg la. et pourquoi moom tey fi Nelson Mandela toll fi Nelson Mandela toll Abdoulaye war na fa toll mais Macky Sall moo ko xañ jël Abdou Diouf teg ko ci kaw Abdoulaye Abdou Diouf lan la defal Sénégalais yi Abdou Diouf lan la defal Macky Sall. loolu mooy dëgg conférence 30 milliards Sall jëm ñaar 30 milliards nga tudd loolu mooy dëgg. ah. loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg. mais que y a de ces choses y a de ces choses y grand il faut que Sénégal yi ubbi seen i bët te xool. loolu mooy dëgg. te xam ne ñun lu bëgg tey Sénégal mooy sunu doom yi jaar ci désert bi ñu bañ a tey jaar ci désert bi toog Sénégal liggéey. rek. sunu doom yi jaar ci Méditerranée bi ñu bañ a jaar ci Méditerranée sunu sunu doom yi simolé wu devant le palais de la République taxaw taal sa bopp. xalan da ngaa désespéré sa réew grand loolu ñaw na. trop trop. kon Sénégalais yi ñu xam ne ñun xeex bi ñuy xeex nii c' est pas pour nous. non c' est un combat noble. parce que ñun ñun ñun ñu démarché de gauche à droite chaque jour ñu démarché ñu propose ñu xaalis bu dul jeex nga ñun gëmuñu loolu. ñun nit ki la ñu gën a gëm Sénégal la ñu gëm. loolu mooy dëgg. comme ni nga ko waxee yaa yaa am na ay xarit yu intime yoo xamante ne c'est des copains c'est des privés dañuy yëngal seen bopp mais ñoom waruñu yëngal seen bopp. yaa war a yëngal seen bopp envers eux. c'est ça la loolu ah, laa gëm. yow yaa leen war a xool. da voilà yow yaa xool ne leen est-ce que vous dëgg laa leen di wax est-ce que vous vous êtes ah, ah, loolu la wax ji gën voilà c'est ça la loolu mooy dëgg loolu mooy wax ji kon kon à travers ma voix. Mhm. un caporal radié dans l'armée par une injustice orchestrée par le minable général Mamour Sow. dëgg la. maa ngi woo sama mbokk homme de tenue yëpp. ñëpp. parce que man képp ku dégg sama voix may wax rek xamal ne homme de tenue laa nekk défendre. loolu mooy dëgg c'est ça la vérité. vidéo bu moo mës a def audio bu ma def c'est pour ñu yokk salaire militaire yi jox leen seen gëdd. loolu mooy dëgg. kon tey seen frère moo leen di woowaat nee na xeex bi ñu leen loolu mooy dëgg. bul leen bëggee forcé leen ci ordre yoo xamante ne day déstabiliser Sénégal ñoom buñ ko nangu ndax seen Sénégal la ñu ngi fi seen i doom ñu ngi fi. loolu mooy dëgg. may jaare foofu encore di lancer un appel ci xarit général yëpp. Mhm. wax leen ne leen ñu def chaque vendredi ñu jóge fii dem Touba julli ji. Mhm, loolu mooy dëgg. wala dëgg. sama frère catholique yi dem église. loolu mooy dëgg. Macky loolu pour mu am. loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg. il faut ñu wax il faut ñu wax il faut ñu wax ak Macky Sall pour paix bi am Sénégal stabilité bi am Sénégal Macky Sall garder notre stabilité parce que loolu lañ ko fi tegee. loolu mooy dëgg. loolu mooy réalité. parce que dëgg sërëx yi muy élection nii jëm nii dëgg sërëx yi mu bëgg a teg nii mais grand mais ñu woon dëgg le 29 bu Sénégalais yi génnul Macky Sall bu ñëwee élection yi bu sàccee élection yi Sénégalais bu génn fi ne taal réew mi ñu mhm, mooy dëgg. parce que parce que sàcc bu doon raw jot a yàq ne la ñu wax mais sàcc dama ne la bu xasee rek génn sa kër bàyyi nekkatul sàcc. loolu mooy dëgg. boo ko jàppul loxo ci poos nekkatul sàcc. loolu mooy dëgg. Sénégalais nag bu ñu bàyyi Macky Sall sàcc élection yi nag ñu génn ñoom dañu bëgg a taal Sénégal ñu woowee woon million de mars di leen génn jàkkaarloo ñu bëgg a taal Sénégal ñu ne duñ ko nangu parce que ñun nous sommes des patriotes Sénégal dañu am te amuñu feneen. mooy dëgg kon na ñëpp jug takk taxaw. te xam ni 29 c'est une date historique. loolu mooy dëgg. ndax du war a sauver le Sénégal c'est le 29 décembre incha allah rabbi ñu ngi woo Sénégalais yëpp nag ñëpp ñu sow yëre yu weex ñu jàmm la ñu wootee. rek jàmm ak salaam. ci kaw jàmm jooju ci jàmm jooju na policiers yi ak gendarmerie yi ñëw encadré ñu ñu dem jël suñu mémorandum dem par palais de la république jox Macky Sall suñu mémorandum amuñu intermédiaire ak kenn muy Aly Ngouille Ndiaye muy keneen ak keneen ñun Macky Sall la ñu soxla parce que Macky Sall la ñu faloon. ñun fal ñu ay ministre déedéet Macky Sall moo tànn ay ministre Macky Sall la ñu fal kon sunu mémorandum Macky Sall lañ koy jox. loolu mooy dëgg de. tey engagement bi Sénégal dugg nii parrainage bi moo fa dugal. en tout cas loolu mooy dëgg. corruption bi ñuy wax nii naan sama mbokk militaire yi gendarmerie ay leen di wax corruption ci armée bi ci gendarmerie mais ça c' est faux archi faux. loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg. parce que Jésus kaw. Ah. mais mais mais tey Sénégal si li bokkoon non non non non non non dirigeant la sont tous corrompus. mais c' est ça la réalité loolu mooy dëgg. mais ça mais ça c' est la triste réalité parce que aussi tey contrat yi ñuy nekk di signé nii ñoom dañ ci amee apport. te muy réalité muy dëgg bu wër. <laughs> loolu mooy dëgg. kon li ñuy gis nii ñun suñuy bët ay mille francs deux mille francs loolu du corruption. déedéet <laughs> déedéet. corruption bi c' est au sommet de l' État. en tout cas. syndicat yi ci télé bi ñooñu gouvernement du Sénégal Macky Sall sama sama papa Bamba waxoon na ko Macky Sall ñu ok mooy dëgg de. mënul nooyi mënul sëq ku bëgg encore fajal nañ ci put ñun ñu ko nangu. li ñuy wax ni ay mille francs loolu du corruption corruption bi ça se passe au niveau de l' état loolu mooy dëgg. corruption bi ça se passe au niveau du palais de la république. loolu rek mooy dëgg. parce que fa la ñuy joxe milliards yi jël ay ay su ma neexee ma tudd seen tur tey. loolu mooy dëgg. parce que il est temps que sénégalais yi xam. dëgg loolu mooy dëgg. Diagne Fada Diagne Fada ñaareelu la saaga Macky Sall. ku mu sax. ba pare ba pare dem na ci parce que du vision Macky Sall la gëm mais am na lu ko Macky Sall jox te alal la jox. ah waa ji rek barki Dembo Ndiaye Moustapha Cissé Lo bi ko gars yi commencé fonto foofu mu accéléré Macky Sall mu napp ko mu yëngal ko rek gars yi yëkkati xaalis ñoom noonu la loolu c'est ça loolu la xam en fait xam nga euh, caporal loolu loolu rek la ñu xam ñun li ñu xam ñun ñun li ñu ñor mooy ñu génn ñu ñaan doomu sénégalais yëpp le vingt neuf allah ñu joxante rendez-vous le vingt neuf bu kenn tardé bu kenn tardé le vingt neuf fu mu sonee na ñëpp ñëw bismillah wax leen incha allah rabbi wool gars yi wool ñu lancé voilà kon ñu lancé sénégalais appel waaw wax ne la wan million de mars foo Sénégal mhm. mu ngi woo ñëpp parce que ñu li ñuy def du pour suñu bopp déedéet sénégalais pour génn ñu dem buntu palais de république da xaw ak Macky Sall jox suñu mémorandum mu mhm. annulé parrainage bi les candidats yi nga xamante ni soo des exilés ñu indiwaale Sénégal des détenus politiques là ñu libéré leen suñu ressource naturelle ah maa ngi dégg ñu ne. dëgg la boo moytuwul mu daw sax balaa ñuy ñëw. boo moytuwul Macky daw balaa ñuy ñëw. moom ragal parrainage bi ba a rayante policier bu ñu ñëw sànni ay lacrymogène rey ci seen i mbokk rey i frère rey ci i parce que policier bu ci nekk ci famille nga jógee te famille bu ci nekk am na kenn ku ñëw ci marché bi policier bu ci sànni lacrymogène sa sa manga wa sa waa loolu mooy réalité. waaw kon tamit ñoom xam nañ loolu. mais j'en suis sûr que ak seen intelligence bi yoon du ñu yegg foofu parce que bu ñu yeggee foofu. mën na indi révolte populaire boo xam ne vraiment ñaanuñu ko yàlla senegal ñun li ñu bëgg mooy vraiment ñu may ñëpp ñu may ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu may ñëpp ñu génn ci jàmm ak salaam pour vraiment ñu marché ñun ñëpp ñu ñaxtu ñu naqarlu li nga xam ne moom moo am Sénégal ñu woo ci doomu sénégalais yëpp la 29 comme ni ma ko waxee. comme ni ni ma leen ko daan waxee comme man mi comme ni ma leen ko daan waxee déglu leen li ma wax de xam nga loolu dafa jafe ci Sénégal xam nga Sénégal boo nee ni ma ko daan waxee la plupart de temps boo nee ni ma ko daan waxee borom di ko fekkee ki ko waxoon du ko fekkee mais comme ni ma ko daan waxee di ngeen ma fa gis incha allah le 29. donc euh, ma frère ma ñu ñu jéggal la ñu bàyyi la nga tàggatoo ak gars yi comme ça le 29 incha allah ñu fekkante fa bismillah waaw incha allah grand comme ni nga waxee di rafetluwaat encore seen taxawaay. Mm-hmm. parce que tamit euh, euh, yombul. benn mm-hmm. créé benn projet depuis. mais xam ngeen ni projet bi ngeen créé nii mooy ne nii moom moo war a sagal sénégalais loolu mooy dëgg c'est ça la vérité. grand yéen yéen grand. Mm. grand wan réew na bars xool moom moo wan réew na bars moo naan Macky <laughs> c'est la vérité loolu mooy dëgg. grand di nga grand slogan boobu mooy génn bu bees Macky Sall dootoo ko defati. loolu mooy réalité. parce que bi ñu fi toog di ñàkk fayda ñu jël ay novelas tii bi di ko fi teg ay ay ay ay nii naa ay affaire ñàkk fayda suñu doom yi di gis ay ay si tool seen i yaay télévision bi ñii di fóonante fii ñii defee fi saay saay fii xale yu ndaw di ko jàng. loolu mooy dëgg. te loolu loolu amul ñu benn njëriñ ñun. déedéet loolu intéressé man sénégalais yi laay woo. Mhm. par ma voix au milieu de marche appelle tous les sénégalais quand même. Mhm. ñu ñëw taxaw te xam ne ñu li ñuy xeex du pour suñu intérêt. déedéet. pour intérêt mais grand. waaw. teeram bi mu jëlee mille huit cent milliards. mais Dakar Niger Dakar Dakar Mali Niger xañ na ci. Mhm. Hmm? Mhm, dama. grand grand ana waa Kaffrine. en tout cas jar laaj de. ana ana waa Koungheul. jar naa laaj. waa Koumpentoum waa Kousanaar waa Malem Odar waa Malem Niani waa Sinthiou Malem. da hmm. leen a fàttee. dëgg la dëgg la. te ñoom train bi lañ doon train bi lañ doon dundee. dëgg la. waa Tambacounda. Hmm. waa waa Kotiari waa Bala waa Goudiri waa bi la c'est ça la vérité. l'éclatement de Casamance lu ko indi train moo amatul foofu. voilà. dëgg la kon loolu la ñuy xeex ñun sensible la léegi ñuy wax bi ma xanaa euh, ko bëggee da loolu mooy réalité loolu mooy réalité. nit ki man tey tey ñun ñoo bëgg Macky Sall grand laay wax. ah en tout cas parce que dañ koy sauver ñun Macky Sall daf ñu war a. Macky Sall tey dafa dafa war a jël. alalam moom bi mu ñàkk moom dugal ko ci wàllu miyum dem marché financier moo koy sauvé. Ah, en tout cas moo koy sauvé de. moo ko sauvé parce que aussi bu ñun li ñuy wax nii moo koy dimbali. loolu mooy dëgg c'est ça la vérité. mais ñun ñëpp ñu ne Macky Sall baax na baax na te boo añee doo reer boo réeree doo dékki boo feebaree doo faju boo liggéeyee doo fayeeku boo liggéeyul moom kenn waxatu la. loolu mooy réalité c'est ça la réalité. léegi fan lañ jëm. <laughs> kon sénégalais yi faaw ñu xool xam ne ñun Sénégal faaw ñu a defal suñu bopp. loolu mooy dëgg réew bi ñoo defal suñu réew gii. loolu mooy dëgg. sama idole sama idole sama idole Thomas Ndata Talax dafa dindi lépp réduire le train de vie de l' état. loolu mooy dëgg. lu gouvernement sénégalais lu ko million cent milliards par an. seen salaire mënul jënd loolu. Hmm. sunu alal lañ jël di ko di ko sàcc di ko di defee ci loolu. Hmm. mais kon tamit ñun du neexal sénégalais yi ah. dëgg la. du ñu raay sénégalais yi. dëgg la loolu mooy dëgg. bu fi tegatee Macky Sall ñoom dootuñu ko defati. ah dinañu am dootuñu fi nekk ñun di xeex. Hmm. grand ñu fi nekk ñu di xeex di dem prison ñu ngi sànni ay lacrymogène di ñu woo sax di ñu menacé di ñu topp di di retracer suñu affaire yi. man le huit du du du du huit décembre au au dix huit au dix huit décembre dañoo dagg sama puce jekk ba saa ñu dagg sama puce orange bi xaw ma nu mu demee bi ma ñëwee fii après dinañ ko dinañ gars yi defaraat te doomu fa damaa jëm saa ñu indiwaat puce bi allo. waaw maa ngi lay déglu maa ngi lay déglu billaay. waaw kon loolu la kon il faut que sénégalais yi ñëw. Mm-hmm. parce que dëkk boo koy defar ñu ñoo war a ñëw booloo defar suñu dëkk. loolu mooy dëgg c'est ça la réalité. je lance un appel te sénégalais aussi nañuy yeewu que Sénégal fii dëgg bi gën a tey Sénégal li ñu wax ni mooy tiyaaba si Sénégal tiyaaba bi gën a mag ci tiyaaba yi tey. Mhm. mooy ku nekk di fen. en tout cas. bàkkaar bi gën a mag ci bàkkaar yi tey. Mhm. mooy benn Ousmane Tounkara ba nga taxaw wax dëgg gi ñu ne kii xool dara parce que dëgg gi muy wax. dëgg la loolu mooy réalité c'est ça la vérité. dafa amul dëgg kuy yàq te musul am. amul fen dëgg-dëgg rek la fen fen rek la c'est ça la vérité. diaspora bi yëpp ñu si dugal seen xaalis. ñu si dugal seen doole. ñu si dugal seen xel ñu si dugal seen seen xam-xam. ñëpp ñun Sénégal amuñu seen fay yéen. dëgg ñu ngi ciy woo ñëpp. amuñu seen fay. ñu ngi woo ñëpp. au delà de mille yi ngeen dugal par an parce que grand l'argent là on koy retrace à chaque fois. Mm. mille milliards yi ngeen dugal yéen par at. am déet. loolu mooy réalité c'est ça la réalité loolu mooy. mais kon mille yooyu noonu yéen bu ngeen ko dugalee war ngeen am ngeen droit xool. Hmm. te bu fekkee ne affaire politique la ñuy wax rek. libération Khalifa Sall ci point yi la bokk loolu c'est pour les sénégalais. les candidats yi exilés c'est pour les sénégalais. le ressource naturelle c'est pour les sénégalais. ce parrainage c'est pour les sénégalais parce que Macky Sall bu naan amoon du nekk président. loolu mooy dëgg c'est ça maître Ablaye Wade bu indi woon parrainage Macky Sall du nekk président parce que bi muy jugee PDS bi dem en 2008 moom ñu ma àndaloon ba ñu cinq personnes. loolu mooy dëgg c'est ça la vérité. mais qui était mais qui était le tête de l'opposition en 2011. c'est ça la vérité c'est ça la vérité. Moustapha Niass kan la waxoon ne c'est Moustapha Niass Moustapha Niass kan la waxoon ne c'est le tête de l'opposition. dëgg la. tey sa traître la moom la ñuy jooyal tey. te traître la moom la ñuy tàcc tey di ko ne ko yow yow tey yow yaa neexal liggéeyal. dëgg la. kon loolu il faut que mu dakk na Sénégal yëpp génn le vingt neuf à part de neuf heures précis na gars yi génn ñi nga xam ñu ngi ci région yi war a ñëw ñu ngi xool à part de Dakar ñu ngi xool incha allah ñoom fu ñu war a casé ba jour si. Mhm. incha allah rabbi am naa ci njot nag bu rafet su mbooloo mi génnee. Mhm. il va reculer. merci grand vraiment loolu mooy wax ji. wax ji yëpp daal defe naa ne. xeex boobu. mooy loolu. waaw mooy wax ji. mbooloo moo koy mooy doole. loolu mooy wax ji ñu ngi lay. respecté bu ngeen bëgg a nekk loolu mooy dëgg. ku bëgg a tëdd sa kër tëddal. bu ngeen dëgg la. ngeen en tout cas ku a tëdd sa kër tëddal bu njaaxum mi ñëwee bul ne woote wuñu ko fi woon démb. xam nga lii. Sëriñ maam maam da bañ. loolu mooy dëgg. maam limaamu daa bañ. dëgg la maam bu Kunta Njaasaan daa bañ. dëgg la. ah. loolu dëgg la. mais sénégalais li ñu ko xamoon mooy bañ mais grand yéen sa gars yi nekk à l' étranger. mais ñun mhm. fa tëj ñëpp prison. dëgg la. bañ moo tax ñu yóbbu yi. loolu mooy dëgg. c' est ça la vérité. seen ngor moo tax ñu yóbbu leen ci kaso yi. loolu rek mooy dëgg. mais ana sénégalais bi doon nekkoon bañkat. dëgg la kaso rek. ana sénégalais bi amoon yërmande. loolu mooy dëgg. ana sénégalais bi amoon li mu bëgg ki xamoon li mu bëgg. ñooñu nekkatuñ fi jeex nañu. ah non ñu ngi fi de. ah nañu la dinañu gis. man kay wax leen ko waaw. la suite dama ne. waaw man xool man damay défier sénégalais yi. voilà. bu dee dignité amaan na fi bu dee. Mhm. li Serigne Touba doon liggéey ñun gëm nañ ko li Maam Maodo doon liggéey ñun gëm nañ ko li Maam Limaamu doon liggéey ñun gëm nañ ko li archevêque yi doon liggéey ñun gëm nañ ko sénégalais yi nañ génn le vingt neuf insha àllah ren gëm naa ni sénégalais nañ génn le vingt dëgg la c'est ça la vérité parce que nag Macky Sall Macky Sall mhm. mécanicien bu jox sànca maçon la loolu mooy dëgg c'est ça la vérité te mécanicien moom grand mécanicien boo ko joxee sànca maçon lu mu fa def ah yaa ko tooñ. kon ñu ah. Sénégalais yi ñoo tooñ Macky Sall. loolu mooy dëgg c'est ça la vérité. ñun ñoo tooñ Macky Sall parce que ñoo ko jox lu mu attanul. ah antanul nguur gi de nguur gi dafa diis pour moom. ñoo ko ko joxoon. dëgg la daa diis moom. ñoo ko ko joxoon. dem nañ ba xam ni vraiment ci fa ñu jëlee fa mu ñu jëmee ci kàmb ga la ñu jëmee. loolu mooy dëgg léegi nag bu fekkee Sénégalais ñoo bëgg a dem ba dugg ci biir kàmb gi. nañ dugg ci loolu mooy dëgg. nous nous sommes avec l'armée sénégalaise nous sommes avec la police nous sommes avec émission avec le peuple sénégalais. yàlla na suñu borom def jàmm. may gudd fan ak wér. Uh-huh. ñëpp fekke ko te tal ko. Uh-huh. ñu jëlee fi Macky Sall. te uh-huh. président bi fi war a ñëwaat. dëgg la. ñun war ñu ne ma duñ def seetaan ngay def ndaataa talax ko Macky Sall. da ngay ñëw Sénégal parce que projet de société sénégalais yi. Sénégal am nañ seen projet de société bopp. te projet de société boobu ñun wan ñoom de marche. Mhm. dinañ ko établir ak sénégalais yi. Mhm. président bu ci toog noonu ngay toogee ci réew mi. Mhm. ak di ngeen seet projet nag. mais projet yi sénégalais yi gën a soxla. dëgg la. yow a naaw te amoo laaf. ah en tout cas c' la réalité. yaa ngi bëgg a daw te en tout cas ku bëgg a akkara da ngay ñeme kaani te amoo la ku bëgg a dee ngir seen réew ñun gënuñu leen. jamais. sëriñ Touba bañ moo tax mu génn réew mi. Mhm. dem jaayanteeg tubaab bi ba ñibbi si am ndam. Mhm. kii ose gañ. loolu mooy mais kii loolu mooy dëgg c'est ça la vérité. bu dee ay ragal lañ bëgg a doon Macky Sall dinañu noot. ah loolu mi ñuy noot ba pare. même bu fekkee bakkadi c'est vrai. mi ngi ñuy noot. dama ne mu ñuy noot te noot boobu nag. mais duñ ko nangu. parce que moom nee na buur la maamam buur la ngalla nee na moom maamam buur la. mais maamam kenn xamu ko. Demba War Sall Demba War Sall mooy maam Demba War Sall nga xam ci moom. dañu daw kaay ma wax la am na ndeysaan sama benn xaritu tukulër boo xam ne defe naa duggoon xaw ma ci laay bi la duggoon wala fële la duggoon keroog. mais en fait am na lu mu wax lu important nee na même Fuuta. bi tukkuleer yi di xeex pour libérer Fouta maamu Macky Sall dafa daw dem Fatick dem nekk jardinier xam nga yooyu yëpp daf histoire sénégalaise dafa leer nañ xam nga histoire ku ko bëggul xam bëggoo koo xam mais senegal ñëpp ku nekk xam nga ku nekk li mu doon parce que on est tous des voisins on est tous des cousins on tous des cousines gis nga même ci diaspora bi même ci diaspora bi on mmh. se connaît tous diaspora bi ñëpp xamante nañu ku nekk loo doon keneen ki xam na ko ku nekk loo man keneen ki xam na ko ku nekk loo manul keneen ki xam na ko lan moo tax nga defee ne sénégalais yi tiit bi ñu yëgee ne one million marche bi ñu yëgee ne one million marche man mii idée bi ci man la jóge lan moo tax nga defee ne ñu bari am tiitaange parce que ñu bari ñu ngi ne ñii yëkkate lii ñii duñu caaxaan xaaral ñu saboté xaaral ñu def ay yëfu dof parce que kii jóg du kenn du ko delloo ginnaaw man ku ma xam-xam na ne du ñu dellu ginnaaw ñun amuñu yooyu ñun xamuñu ay dellu ginnaaw ñun lu ñu wax rek dañ koy yekkali biñ ko fi tàmbali lu ne dégg nga ko fi man nee naa la grand ba ci sama valise dama koy photographier di ko yónnee sama xarit yu baax yi ci réseau sociaux ñu mm-hmm. naan noo grand bi demul kii day caaxaan daf ñuy mbalak léegi nag lépp leer na lan moo jot ñun ñëpp ñu joxante rendez-vous samedi ku ma bëgg a gis ñëwal bu leen daw de saraxula bi mi ci yoon bi le chemin ñu ngi ci yoon bi voilà demee bi voilà assemblée voilà vas-y ñëpp ñëw incha loolu mooy dëgg dina fa tenir des discours de responsable. loolu mooy dëgg. moom li mu doon wax naan non Ablaye Wade suñ ko gañee bëggul génn palais bi man dinaa dem palais génne ko naa formé sama gouvernement bopp loolu terrorisme lañ koy tuddee ñu duñ def loolu. dëgg la. moom loolu terrorisme lañ koy tuddee laa wax loolu c'est la c'est le terreur. dëgg la. ñun du ñun duñu def loolu ñu xam lu ñu def. dëgg la. dinañ xeex le 29. mu yaakaar le 29 lay jeex. ñu jàpp ko ba 24. loolu mooy dëgg. février lañ jëm moom. Mhm. moom saa yu dellu ginnaaw ñun dañu dellu ginnaaw. jamais Sénégal nag ñun ñoo ko moom. ah en tout cas c'est ça la vérité. dem na dem na dem na dem na France ba ki dem gisante foofu benn bandi. Sarkozy pour lan. loolu mooy dëgg c'est ça la vérité. parce que ñu ngi ci ay deal ñu ngi ci ay deal ñun sénégalais pare nañ fa joxe suñu bakkan pour sauver Sénégal garaaw ñun du suñu bopp la ñuy sauver de mais suñu doom war a juddu. Sénégal la ñu war a juddoo. dëgg la dëgg la. waaw kon maa ngi jégalu lu baax ci kàddu yi nag. ñu ngi rafetlu ñu ngi rafetlu sa taxawaay. bu dee wax naa bu dee wax naa lu ëpp. déedéet déedéet li nga wax yëpp dëgg la. xam leen ni xam leen ni. dëgg la jëmmi doomu aadama dong mhm. mooy wax. Mhm. bu dee li ma fi wax am na solo. xam mhm. leen ni jëfi yàlla la du ma ci tuus. loolu mooy dëgg c'est ça la vérité. di rafetluwaat encore liggéeyu. diaspora bi. dëgg la merci. di rafetlu encore liggéey one million de mars ak ñi nga xamante ne nii ñu ngi liggéey ci suuf pour one million de mars chaque jour ñu ngi ciy dox jarul ñu tudd seen tur. dëgg la dëgg la. ci lu baax. dëgg la. ñu ñooy rek ci di wax mais am na xam waxuñu de mais lépp loo xam mu ngi dox la million de ñu ngi ci. Mhm. dëgg la loolu mooy dëgg. kon ñu ngi woowaat ñëpp nag on lance un appel à tous les sénégalais yi. di gëm seen réew bëgg seen réew yaakaar ne Sénégal mooy defal Sénégal defal seen maa ngi nuyu nag internet yi bu baax a baax vraiment di rafetlu encore yéen liggéey bi ngeen liggéey. Mhm. via l' internet. Mhm. merci merci. yàlla na yàlla may jàmm. dëgg la yokk taxawaay yi. dëgg la yokk gudd fan. Ah, dëgg la yokk mbégte. merci beaucoup dama bëgg gars yi dëgg dama bëgg gars yi dëgg ba la benn naaf. merci merci caporal vraiment. ñi nga xam ne nag génn nañ ci panel bi demoon. Hmm. ñu ngi leen di woowaat ñu ñëw te xam ne li ñuy def c'est l'intérêt majeur. voilà pour l'intérêt Sénégal. Hmm. loolu mooy dëgg. maa jërëjëf jërëjëf caporal vraiment ñu ngi rafetlu liggéey bi. kooku moo doon euh, suñu xarit caporal Ousseynou Fall. vraiment Ousseynou Fall patriote la ku ko xamul ci Sénégal rek mën nga koo xool ci YouTube bi di nga ko gis parce que c'est un patriote c'est quelqu'un qui se bat pour son pays. Euh, Ousseynou nag ma jaajëfal la merci donc ñu joxante rendez-vous rek. xam naa dinañu gise dinañu gise ci ay fan yu néew merci voilà donc euh, mes frères et sœurs euh, kooku moo doon suñu xarit caporal Ousseynou Fall ñuy woo ñëpp rek lii invitation la lii vraiment comme ni ma leen ko waxee na ñu jël suñu ay différence yëpp ñu tegee ko de côté bàyyi leen ba leen vingt neuf jàll bàyyi leen ba ñu jële fi Macky Sall ak jàmm ak salaam ngeen ñëw ci saraxole bi ñëw ñëw dóor yeeg xeex yeeg bagaar yeeg yooyu yëpp ñëw leen euh, toujours li ñu bëgg toujours li ñu bëgg rek mooy nañu ñëw ñu dajaloo dañ leen jox loxo yéen ñëpp tendre nañ leen la main nee nañ leen mbir mi bi mu commencé nit ñi dañu newoon du dem léegi nag comme car bi départ na ñëw leen ñun ñëpp ñu dugg ci ñu dem ñi jële fa li nga xam ne moom moo ñu naqar ñun ñëpp différence yi nañ leen teg de côté s'il vous ñaan naa leen ko man maa leen ko ñaan de personne ak loo leen mën a xalaat ci man ak loo leen mën a jàpp ci man ak loo leen mën a bañ ci man man sama faiblesse mooy sama xol sama xol mooy sama faiblesse parce que man aw ma dara loo xam ne dama koy jàppal doomu aadama kenn bu mu xalaat ci àdduna amul benn doomu aadama ci àdduna bu war a xalaat ci biir boppam rek ne que Tunkara mii de jóg na pour dagg sama bopp bi pour sànni wala pour daggata sama ay tànk pour dugal ci cin c'est pas ça loolu taxumaa jóg ñun li ñu tax a jóg c'est pour dégager Macky Sall rek dégager Macky kese c'est pas moi la personne c'est pas mes enfants seulement c'est pas mes parents mais Macky Sall rek mooy problème mu Sénégal li ñu bëgg dañu bëgg sénégalais yëpp génn doomu Sénégal yëpp lañu ñaan ak force de l'ordre dañu bëgg policiers yi génn en force dañu bëgg policiers yi génn ak doole pour protéger doomu Sénégal yi dañu bëgg militaires yi génn ak doole pour protéger doomu Sénégal yi parce que ñoom kat seen liggéey protéger doomu Sénégal la léegi nañu seetaan ndax bu ñu génnee dañuy noot doomu Sénégal yi ndax dañ leen di gaañ wala dañu leen di protéger parce que xam nañ ne loolu mooy seen liggéey liñ leen embauché li nga xam ne loolu la ñu waat li nga xam ne loolu la ñu wax ne loolu la ñuy def biñ leen di embauché dañu ne dañuy protéger doomu Sénégal léegi ñun incha allah ñu ngi leen di challenge ci loolu nga xam ne mooy seen liggéey man de bu ma ñëwee personnellement dinaa dem gisi alkaati yëpp dinaa dem gisi militaires yi yëpp ku ma ci mën a gis camp militaire buñ ma permettre dinaa dem ñoom ñëpp dinaa leen seet si ma waxtaan ak ñoom incha allah parce que ñun Sénégal moo ñu ñor ñun Sénégal kese moo ñu ñor Sénégal kese ragaluma dugg fenn ragaluma dugg fenn ragaluma wax fenn parce que man doomu Sénégal la c'est ça la vérité li ñu ñor rek mooy ñu génn wax ci Sénégal képp koo xam ne bëgg nga Sénégal Sénégal woo na la Sénégal woo na la pour nga ñëw taxawu Sénégal mi ngi mel ni sax xarit bu am soxla wala problème woo la ne la kaay jàppale ma soxla na Sénégal soxla na doomu sénégalais yëpp dem jàppale Sénégal c'est ça la réalité nañu jël suñu ay différence nee naa leen nañu jël suñu ay différence teg leen de côté xiiroo ŋaayoo waxante lu ñaaw defante lu ñaaw nee nañ leen tontu wolof Njaay wax na leen de nee na leen tontu du frox ku nekk jëlal sa temps nga jël yi ngay def yëpp nga teg ko de côté ñu dem ñu taxawu Sénégal bu Sénégal pare leneen loo am loo lijjanti ay ay rendement de compte yooyu yëpp boo leen ko boo leen ko mënee de seen xol may leen ko ngeen baale ko soo leen ko manul tamit sa seen xol mayu leen ko ngeen denc ko ñu xaar parce que le Sénégal a besoin de nous Sénégal daf soxla c'est ça la réalité tey boo xoolee ci réseaux sociaux yi suñu xarit yu baax yi ndeysaan ñëpp a ngi daggante ay bopp ñii ñu ngi wax lii te la plupart des temps da ngay xam ne ay sos la parce que sénégalais ñun xam nañu sos xam nga li grave ci senegal ñun bu ñu déggee sos rek dañ koy xam xam nga nit nee nañ la kàddu mënuloo nit ne aar rek nga ne dafa ne araam non nit ne aar rek nga ne dafa dagg bopp da ngay jël kàddu yëpp nga déglu ko. da ngeen di jël kàddu yëpp ngeen xam ko ngeen jël intention yëpp ngeen évaluer ko bu boobaa di ngeen xam doomu aadama bii lan la fas yéene c'est ça l'importance xam nga nee nañu sax par par contre li kilifa yu mag yi daan wax nee nañu euh, nee nañu kàddu du jëf kàddu du jëf ñaata nit ñooy na tey tey nit dinaa la rey wala dinaa dagg sa bopp wala dinaa dagg sa ay tànk wala tey dinaa la dóor ba ngay bëgg dee en réalité ñooñu duñ ko def ki koy def du ko wax moo tax ma ne leen nañu leen génn man je serai le premier man premier activiste bi ngeen xam man ma jóg ak sama doole bopp man ma jóg ak sama doole bopp man nga ma jóg ak sama doole bopp ma dem ma dajaloo ak doomu Sénégal yooyu nga xam ne dañoo bëgg Sénégal du ma ci xalaat ñaar jeune ne vais pas y penser deux parce que man li may wax dama ko gëm man dama ko gëm man dama ko gëm c'est ça la vraie réalité dama ko gëm loolu dama ko gëm non man dama gëm loolu li ma gëm mooy doomu sénégalais yëpp génn doomu sénégalais yëpp génn doomu sénégalais yëpp génn tey fii ndeysaan ñëwuñu fi tey pour xaste pour saaga pour tooñ pour wax lu bon pour def lu ñaaw déedéet dañu ñëw tout simplement pour xam ne que si une semaine yéen ñi mën a calculer ay jours yéen ñi mën a compter te di si une semaine Sénégal am na dara lu fa war a xew mooy lan ay doomu sénégalais yu génn yéen da ngeen koy dégg rek les wan million marche wan million nangam wan lii wan lële nee nañu doomu sénégalais yëpp ñu génn doomu sénégalais parce que soo génnee xeex nga injustice soo génnee xeex nga euh, ñàkk euh, xeex nga par exemple li nga xam ne loolu la ñu Macky Sall di wax boo génnee xeex nga lu bon li nga xam ne moom la ñu Macky Sall di def doomu sénégalais yëpp dina am jàmm boo leen ma seet la boo leen bu fekkee yéen nag may bàyyi xel seetlu ngeen ne yu bari léegi da koy jël rek nga tënk ko nga def ko benn par exemple boo baree ay ay ay yére xam nga tey kuy voyager boo amee benn sagaru yére fu ne da koy jël nga dajale ko yëpp dugal ko ci benn valise nga watat valise bi dem parce que soo bëggee gàddu sagar bi gàddu sagar bali sagar say loxo day jeex ñaari loxo rek nga am donc munuñoo toog fii kii nga lijjanti lii nga lijjanti lële nga lijjanti lii nga wax lële nga def lële déedéet yooyu yëpp nañ ko jël balee ko boor xool ci Sénégal dem lijjanti affaire u Sénégal affaire u Sénégal nag bu jàllee keneen koo am looy def ak looy wax ak looy jëf wallahi li ma lay wax toujours boo leen ma déggee xaw ma ndax dingeen ngeen déglu sama ay waxtaan musumaa wax ba ne doomu aadama yërëm leen ma damay ne ñaanal leen ma néew ma kenn yërëm leen ma de ku am marto wala nga am ay jaasi jamal daggateel defal lu la neex ay keelees man sama bopp bi fi mu ne nii ak sama noppi Sénégal lay dégg ak wan million marche ak le vingt neuf yooyu lay dégg sama bët yi Sénégal lay gis ak one million marche ak le vingt neuf seulement heure bi dafa sonné l'heure a sonné l'heure a sonné l'heure a sonné l'heure a sonné bu leen fàtte on est des Sénégalais bu leen ko fàtte de te comme ni ma leen ko waxee dafa am kàddu boo xam ne dama ko joxoon sama ay moromu ngor euh, sama ay moromu euh, jullit ma ne leen toujours man lu ma gëm rek loolu laa gëm mooy lan dama gëm li ma gëm dara duma ci jële dama gëm bañ ku ñuy noot bugguma sénégalais bu ñuy noot sama xel a ngi ci yéen ñëpp nag tous les détenus politiques tënk leen ko yëpp ngeen boole ko yëpp ngeen xam ne le 29 loolu yëpp daf ko àmbale le 29 fàttewul kenn le 29 amul kenn ku mu bàyyi ginnaaw kenn nag boo leen ma dégloo bu baax le 29 bàyyiwul kenn ginnaaw. lépp la tënk bépp injustice bépp prisonnier politique bépp doomu aadama boo xam ne dañ la jàpp di la noot injustement loolu yëpp dañ koy dajale di ko xeex c'est important leur est grave moo tax tey déggu leen ma fi ma ne ma sàmba ma demba ma paate wala ma joojo déedéet tey Sénégal moo xew Sénégal moo xewle tey du ma tudd kenn jamais amul kenn ko xam ne fii tey dinañu wax ay waxam tey Sénégal kese pas moi pas toi pas kii pas kele pas Masamba pas Mademba déedéet Sénégal kese moo fi xewle tey maa ngi leen di gërëm nag di leen sant parce que toujours comme ñu koy defee du ñu bëgg a jël seen temps vraiment euh, dañuy wax rek li nga xam ne moom moo ñu ñor li nga xam ne moom moo important et toujours ñu ñëw on reste en solidarité ñun ñëpp ñu ànd ñu doon benn ñun ñëpp nañu ànd doon benn ñun ñëpp dañu ànd doon benn calculer leen ne li ma leen di wax toujours nee naa leen li ñu boole moo ëpp li ñu séparé li ñu boole moo ëpp li ñu séparé parce que li ñu boole on est des cousins on est des cousines on est des amis on est des frères on est des sœurs on est des sénégalais on est des sénégalais xam nga tey nañu waxante dëgg de toujours defe naa dañ koy wax on le parle toujours dañ koy waxante ci suñu biir billahi wallahi tallahi al azim te xam naa ne peut-être di ngeen ne waa ji moo gën a kannasu ci àdduna bi mais billahi wallahi tallahi doomu aadama bi ngeen yaakaar ne man moo ma gën a def lu bon ci àddina wala gën maa xalaatal lu bon ci àddina bu ko dara daloon billahi wallahi ci ñi koy seeti ci laay jiitu man maa ci jiitu dinaa ko seeti te bu ma ko mënee jàppale dinaa ko jàppale yéenewu ma kenn lu bon yàlla bu lu bon dal kenn yéenewu ma kenn lu bon ku ma def lu bon baal naa la ko man man man dama paar baal naa la man wallahi I forgive you wallahi billahi I forgive you non euh, da nee naa leen dafa am ay réalité yoo xam ne toujours nañ ci bàyyi xel xam nga tey bi ma ñëwee daf nee naa leen dafa dañu bind thème bi thème bi boo leen liiree thème bi rek di ngeen comprendre Euh, xam naa nag ndeysaan gis naa ci ci feewu euh, commentaire yi sama gars yaa ngi insister ñu ne ma bul fàtte vingt 26 nu may fàtte le 26 Assane Diouf moo tax man ma ñëw ci lii mënumaa fàtte Assane Diouf mais l'heure est grave dañu toll foo xam ne defe naa ñu dem xeexal Assane Diouf moo gën ñuy waxal Assane Diouf toog ci réseau sociaux yi Assane Diouf Assane Diouf tama ndong ndong ndong ndong param param loolu génnewul Assane Diouf loolu. réglé wul compte Assane Diouf ce qui règle le compte de assan Diouf mooy ñu génn ñu dem jàmmaarloo ak ki nga xam ne moo noot assan Diouf c'est ça la réalité xam nga Assane Diouf euh, euh, comme ni ngeen koy waxee comme ni ma leen koy waxee toujours euh, c'est mon frère dafa am lu ñu boole lu bari avant lii dafa am lu ñu boole lu bari avant li j'ai tous les audios pour le prouver on parle tout le temps dañu daan wax bis bu ne di yónnee wante ay audio yu sentimental waa ji daf ma daan woo di ma ñaanal yàlla ma koy woo di ko ñaanal yàlla c'est quelqu'un que j'adore dans mon cœur mais ndeysaan bouleversant yi ngeen di gis ci réseaux sociaux yi du réalité bi nga xam ne ñun moom la gëm ñun lan la ñu gëm fi mu toll nii mooy ñu dem xeexal Sénégal parce que Sénégal moo noot Assane Diouf c'est pas Ousmane Tounkara man nee naa leen dama toog sama kër di nelaw doomu aadama ma fëgg ne ma diw leur est grave il faut nga nga nga jàppale ñu ci lii ñu naqari ma dugg ci man mii duma dellu ginnaaw incha allah ba keroog bu ñu yàlla mayee ndam bu boobaa ñun ñëpp ñu nuyontewaat ñun ñëpp ñu joxantewaat loxo ñu dellu ay ay rongoñ tuuru na fi ay xalaat jaxasoo na fi ay xol naqari na fi ay wax yu bon waxante nañ nañ ko fi pour zéro loolu yëpp amul njariñ li am njariñ mooy le Sénégal a besoin de Sénégal moo ñu soxla Sénégal rek moo ñu soxla Sénégal moo ñu soxla Sénégal soxal Sénégal moo ñu ñor Sénégal rek moo ñu ñor donc il faut que doomu sénégalais yëpp doomu sénégalais yëpp dajaloo ñu ñëpp ñu dajaloo ñun ñëpp ñu dajaloo ñun ñëpp ñu dajaloo parce que sinon ah vraiment. Ah. vraiment c'est c'est pitoyable comme ni ma leen koy waxee rek il faut ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu <laughs> il faut ñu jóg c'est ça la réalité l'heure a sonné il faut ñu jóg Sénégal soxla nañu ngeen jéggal ma nag mbokk yi comme xam naa ne comme ni ma leen ko waxee woon sànq ñu ngi doon tàggatoo te yéen ñëpp xam naa ne soxlay bari na te tey samedi la j'en suis sûr et certain que man sama ñun ñu ndaw ñi danañ ma dóor boo mu bëgg dee ndax samedi ñoom ñoo ko moom daanaka ak seen dimanche euh, dama ci sàcc rek génn ñëw wax ak suñu mbokk yi toujours di leen ñaxtuwaat rek ñun ñëpp ñu génn ñu rassemblé wu ñu nekk en solidarité euh, maa ngi leen nuyu nag yéen ñëpp en passage xam nga ndeysaan ñu ne la ku tudd tur juum euh, ndey ami juum sama samake suñu jabar ji maa ngi lay ziar yaay faal Euh, bi liggéey ñoom Codou Diagne yéen ñëpp ñi ma fi gis Fatou Diop yéen ñëpp vraiment maa ngi leen di ziar ngeen xam rek nag c'est le Sénégal qui gagne parce que at the end of the day il faut ñu concentrer suñu ay xalaat yëpp ci Sénégal suñu xalaat yi du ñun xeex bi du ñun Maïmouna Wade yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar vraiment Eva Dieng yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar Mohamed Mamoun euh, Sénégal moo feebar ndeysaan euh, Mohamed Mamoun yàlla baax na. Euh, na ñu dem rek euh, comme li ñuy wax nee nañu ci li ci kanam rawuli bët xam nga tey euh, mënoon naa gën ma waat leen ci yàlla xam nga tey ni mu lëndëmee nii ci biti boo xoolee tey ngeen jéggal ma boo xoolee asamaan si ni mu lëndëmee nii xam nga liir bu juddu tey mënta xam ndax xam nga boo xoolee tey boo xoolee ci biti xoolal rek asamaan saa ngi lëndëm kitib donc liir boo ko woowoon boo ko waataloon yàlla nga ne ko du am naaj mais moom mënul xam ndax dina am naaj ou pas mais boo ko mayee temps bu toogee ci biti rek yàlla dina wane naaj yàlla bu wanee jant bu boobaa lépp dana leer comprendre nga yàlla nañu yàlla may ñun ñëpp ñu dund parce que comme ni ma leen koy waxee waxoon nañ fi ne waa jii du dem Sénégal daf ñuy mbalak loolu jeex na léegi defe naa bu ñu dajee Sénégal loolu dinañ ko jël sénégalais la dinañu changer euh, wax ji ne non non waxuñu woon loolu léegi li ñu waxoon mooy euh, non dëmm la voilà loolu tamit defe naa bu ci yàlla àndee dina leer lépp dina leer lépp dina leer du ça avec le temps lépp dina leeral boppam c'est ça dañuy may temps bi rek dañuy may temps bi def ndànk rek euh, dañuy may temps bi dem temps bi bu ñëwee lépp dina leer tout ira euh, lépp dina leer mais s'il vous rek comme euh, ni ma leen ko waxee ngeen jéggal ma parce que doomu aadama matul doomu aadama matul doomu aadama matul doomu aadama matul donc euh, vraiment je vous dis encore que doomu adama matul euh, nañu góorgóorlu rek euh, setal xol yi rafetal xalaat yi te xam rek ne que Sénégal daf ñu soxla wala donc merci encore merci beaucoup vraiment ñu ngi leen di jaajëfal merci beaucoup jërëjëf merci.